doon cheikhul islam El Ibrahim dafa jóge nit ñi nag nañu bàyyi bàyyi nit yi nañoo bàyyi cheikh Ibrahim xamul dañoo ko gis naa ne ak seydi suñu sang bu tedd bii ak seydi Ibrahim. ma umma ndeysaan dama dama ko xaloo yàgg rek sama yaram daw ma xam ne kii moo mat lim doon dafa toog di gàmmoo tey bañu seen ren am na gouvernement dikkal ko muy waxtaan ak ñoom ba mu yàgg mu ne leen bu fekkee réew mi saaga ma man moo koy defar saaga leen bu fekkee saaga sama baay Cheikh Ibrahim moo koy defar saaga sama baay pour mu defaru ay waay kii jaay boppam jaay baay pour mu defaru kii may gor jaay na boppam jaay baayam pour mu defaru kan moom ma jaay sama ak ci yéen wax bi duma na ñëpp xam nga wax bi da ngay defaree caaxaan kii bër bi xëgg ma fekkee ne réew mi lu koy defar mooy Sadio Mbaye Sadio Seye Ibrahima moo koy defar saaga leen ñu baax kon saaga leen seen baay saaga leen seen baay xoolal saaga leen seen baay xoolal baax bi am ko équipe bi dimbali tourné ne saaga leen seen baay man seen baay la baay seen baay la kon saaga leen seen baay doomu saaga baayam nag dañ ko war a rendi xoolal xoolal xoolal ma xamoon bàyyi li muy waxee wax bu jéggi doy ëpp na rafet kay mu ne Sénégal te nee na man ba ma toogee ci xilaafa bi la ma njëkk a wax mooy adabu suluk discipline yéen ñëpp da nga am discipline mu ngi taalibaay tax may wax de Sénégal bi yoon dëkk ba too mën a wax te Sénégal bu ñu amoon yar ak teggi Benim hormatça Ibrahim. Sénégal bu ñu amoon yar ma teggin dañu xormal Cheikh Ibrahim ndax lu coolee bëree bëri bay bàyyi moo dem bu bàyyi kenn digut bàyyi moo dem bu bàyyi kenn digut bàyyi mooy liggéey liggéey boo xam ne bàyyi kenn liggéey kuru moom kon ne xormal Cheikh Ibrahim bàyyi def nee na sëriñ si ak man sëriñ si sënk bàyyi la am seen xam koo bàyyi tooba seen taree bàyyi masa bu ne laaj mu ne ko sontu man dama jóge man génn jës moo ko taal ab bi sifaar ila hëj misaal ga afa kiraaya xam nga lii dee no yu baari bi madiw ba zawr abrar دابا اشتياق المريض تموتون فالجلس والشوق لا يزال برا دعا بالسياقي للمدينة جمد وصار منك فجذب وشوق لا يزال مبرئ فطبعا أحب المصطفى بإشارتي إليه وثورا بالوداد أسرئ déggoon xorma Cheikh Ibrahim dañ ko déggoon fa tabxan uhibul Mustafa man mbay sama nature ba yontu bi sama nature noo mel yontu mel laa mel fa tabxan uhibul Mustafa buy sarat ilay waaw taw rek yan jamono man mbay dama koy yenn saa yi man leen ñëpp yoon bi yenn saa yi ma bëri ko billahi la ilaha illa bàyyi mu ne man bàyyi sama dox sama xool sama damir yoon dumul damir damir ma xaay ba damir mo damir mo ba ban damir ba damir la damir am na waaye am na ban la ci nag kon bu tee bi la may jagal moom Senegal bu ñu amoon jom dama ne nañu xormal Cheikh Ibrahim Sénégal bu ñu amoon ngor xormal Cheikh Ibrahim waaye naa boo saaga Cheikh Ibrahim yaa ñàkk jom amu tax فمن عرف حب حكيم فربر يبش يهي او بي تقولي فزعل أبا جهل من بين لجم أبو جهل فرعون فمن جانا ومن شاف رحيم عندما من يكون فرعون أكن قال قال قال باي لي وي فسال أبو جهل لجم أبو جهل وفرعون قبله والنمرس لجم فرعون kon Mbaye moo nekkoon kan kon wax na ne maa nekkoon Moussa Ndao Moussa Kaddu Diouf moom fa surtout Moussa wu xas safaani Mbaye ma laaj ma nu mu ros kon maa nekkoon Ibrahima Ibrahima inna rabbaka kaana ummatan qaanitan lillaah wala mu tax a fii wala suqum kon maay Ibrahima laaj ma Ibrahima Mbaye ne maa ngi dal ma xam pourquoi pas. waxee ni yow ma indi Muhammadu waaye ki bil nii ki nga moo tax Firawna naan kaani Namrud naan kaani Abu Jahli naan kaani yow nga ñëw Sénégal gi jot démb di fontoo baay te baay moo tax ma dama ne fo rapport yu bashir bil wéy aw bil xasaay Sénégal xam nañ Cheikh Ibrahima da dama ne ku ne saagal ku dul saaga nga saaga doomu Cheikh Ibrahim daa saaga Baye te gis nga gars saaga nii namuñ Cheikh Ibrahim namuñ doomu Cheikh Ibrahim bi Baye la ñuy te maa ngi gën ci alquran karim mi Baye képp ko saaga jëmee ci moom yàlla dëgg sa lamiñ yàlla dana dëgg sa lamiñ dootaa wax mais rek yow mais moom da nga jëm te alxuraan kenn ak ko wax képp ku saaga jëmee ci Cheikh Ibrahim billaahi lasi laa ilaha illa huwa yàlla daal dagg sana mel dana koo tënk ëllëg ko doo mën a wax hmm? mais ca nga jëm mbaw mbaw Sénégal nañ am yar ak maadaama suuf lii métti na lii naqari na non non non non ndax Sénégal gii rek Sénégal gu tuuti gii xoolal Sénégal bàyyi daf ko xeeb yéen li ngeen a xëccoo nii Sénégal gii bay saaga baay bàyyi daf ko xeeb waasisiye wooru faa wa mari kiye yeedini fitrete mokkal sa faydu ɓuru maa ngi yëpp bàyyi defu juróom Sénégal bara xer Sénégal yéen yéen xëccoo Sénégal di ngëf ngëf di saaga ni di yuux bàyyi dafa xer Sénégal moom te kii xer Sénégal ni moom ngeen saaga moom xam nga bàyyi ak nu mel ak Sénégal bàyyi dafa jël taggu ceeb ko mam turi mam si turi coppite ñam bi coppite carotte tëj kaane bi jàpp jën ku mu ci ceeb bi na ko ndaj téye ko raj muy siit day mar kii mar ceeb bi kay li ci biir kenn waxatu ko bàyyi na dafa tri Sénégal rab téye ko pati mar nag xat bi wata yi mu ni huddu mu jëm ñi ba ala darrin olu bi saala fa xaadatu awtani wa ahli ajibu sanaa لم أشكو كنت خلاله بيكون قد غير أبو يوفين ببارسة كفالة بمسك يوم صوب يوم تجولة بقاهر أبتو هناك جمال لحنكو كمين مانكو جاء waaye li fekkee soxla li fekkee na min kantu ne di fiini naa yan wala kaw la ko tattoo kan ab Sénégal na ko kaay kaay kaay kaay kaay bàyyi na bàyyi ma ñëw maa ngi ñëw Sénégal maa ngi demoon Sénégal fekk gars yi suñu Sénégal maa ngi demoon Sénégal fekk gars yi suñu Sénégalais yi maa ngi demoon ñëwaat Sénégal fekk gars yi suñu Sénégalais mooy déet Sénégal nag attention muy sama képp fa Sénégal yow lii c'était Zili Mohamed ويبدو ربا يلا سند وحيدا فمن سند سين غير عزا فظنه سقيم عليلا باطل لن يؤيد رويدكم أهلكم لن تروا مدى الكفر الناقة موسى إسراء كي ملكو pourtant ñun ñun mën nañu xeex mën nañoo bëri ñun njëriñ fu ne mën nañoo fubal ñun toog bay ñu bopp su léegi nag Sénégal xëccoo ko jiw saagat xam nga loolu man su ma royoon nooy def man su ma gisee ku indi problème pour Sénégal man damay jaaxle Sénégal dëkku jàmm la réew jàmm la yéen nga ñëw ba taal ay ay déedéet déedéet kon bëggoon Sénégal ku bëgg Sénégal kay day defar Sénégal mais doo taal Sénégal quand même loo bëgg doo taal. Sénégal dëkku jàmm la Sénégal sëriñ si dañu wax sëriñ si dañ gën wax ni ma woon maa ngi génn di wax waxee leen ko waxee leen noonu waaye tuuti ngeen ne mënu mënu nag ba fee ci yeggee na nga naan Macky Sall man saxar laa woon ma ne na fee fay leen fay leen sëriñ si nañ feeñ ci ma xam ne maa parce que démb président Macky Sall daf ko invité invitation d'honneur la ko def d'honneur xam ne ma doxoon ci ko pare ci topp yéen gis ngeen ko moo ko lan ko wax moo ko lan ko wax mu gën a dem gars yi boo créé naan lii la ko wax mu gën a wóoma lii lii laa woon nañ bàyyi soslante bi nañ teg mbir mi ci yoon gis nga mbir mi soo amee gis nga man mën naa bëri ñëw coow ci mbedd mi combat bi kii mu ngi ñëw deux mille vingt quatre combat baa ngi bëgg ah urne yi moom kenn du ma gis man ku ma naa wotal damay jógee sama kër jël samay carte ba pare dugg ci biir urne bi xool bu ma neex wotal Li ki? Li jor chou? Jor lakhe? Jor chou jor lakhe? Jor kulo? Ma dara gade bibe lè nèj dikaw? Mè tou blis ane gare? Men men respektè sanekali. Sanekali ay lèj dikaw. Mwen yo aye mwala. Mwen yo ken fon to? Mwen yo aye mwala. les sénégalais am yar ak teggin xam nañ bëgg lan la. 2022 bu ñëwee jëlal sa carte 24 24 moom xam naa dafa am borom moo tax weneen nga xam ne soo jëlee ko 24 dafa am borom 24 xam nga nga mooy lan muy tous ak tous d'accord nga Fatou Kitab am na douze yoo xam ne am na ko moom am douze am yoo xam ne ko moom benn kese boobu ne am na ko boole. waaw la wax loolu loo may wen gàtt kon ñu ngi sant yàlla baax nañu bàyyi saaga saaga baaxut nekk sa gannaaw écran nag wax loo leen sa ko neex et gën a garaaw au nga jël sa numéro doo jël numéro kii ngay jël kon foo yow foo nga mooy yow foo nga foo kon da ngay jël taxaw pour saaga mag mbal njëriñ la la amal bi nekk faa yi nga xam ne taalibe bi dañu bëri kilifa seen sëriñ taalibe bu gëm sëriñ ku toll ne ñu saaga bàyyi nga indu naan pourquoi ñu parce que parce que parce que allahu akbar allahu akbar en tant que taalibe nga ne sëriñ waxtu waxi bi nu wax si nu wax des sëriñ sa nu wax ba sëriñ si dafa ñëw Sénégal fii Dakar Dakar def discours bu rafet ba jàkko caaf bi jàkko caaf bi mu bal Sénégal yi da ko Sénégal bi ñëpp dem ko moo di discours boo xam ne ba saatoo kenn ko fàtte sëñ bi jógee fii dem Gambie te beneen discours boo xam ne kenn ko fàtte ma ko ba dem Soudan defar la fa yàqu woon ñëw Mali defar la fa tey moom te xool Soudan ba yooyu problème ku yàqoon doomu Sénégal Mali am problème ku yaakaar doomu Sénégal Gambie am problème ku yaakaar doomu Sénégal Sénégal ñoo koy sàggane waaye nag doomu a sonn yow nga am Sénégal nag di sàggane doomu Sénégal di sàgg doomu Sénégal xat yëpp nga faaroo sëñ Mahi ah ah xat yëpp ngi ñëw ci bëgg ñëw ci moom ngi xaar sëñ Mahi ñu waal xat yëpp guerre bi yéen waa Sénégal di saaga sëñ Maay moo ta mu ne sëñ Maay moo wax ne fekkee saaga ma moo tax Sénégal baax saaga leen bu demee saaga ma saaga sama baay moo tax Sénégal baax saaga leen mu ne mu ne saaga leen seen baay xoolal sëñ Maay comme jëm yoo xam ne mu ne saaga leen seen baay bu ko dégg na dégg rek loolu la wax rek moom man la ma ci dégg réer man. te su te su ma neexee dégg-dégg bu rek dafa ne saaga leen seen baay bu leen neexee bu leen ma itam Sénégal kay te gis na ne loolu dafa Sénégal saaga mën defar dara lii suuf day yàq rek yoon nga xam ne wax mu ne al fitnatu daa'imatu laa nara ma saa fi na mu ngeen nel yar rëbb ne ku may yee laa na laa man ay man ay xesaa yàlla rëbb na ku yee fitna kon fi yee fitna dafa xaram wattaqu fitnatan laa tusiibanna llaziina zalamu minkum xaassatan Alxuraan loolu la wax tamit yàlla mu ne fitna bu ñëwee dem ci yow te gis nga coow ku koy ootee barka Rasulullah barka Rasulullah daw ngi mujj at noo ko at noo ko daw ngi mujj fitna ki at buy ñëw ci yow nga daw wa kenn ngay daw ngay lekk jaar fële ah xëy na yombul rek waaye bilay bu ay ñëwee ngeen daw su ay ñëwee ngeen daw dugg seen bind nopp di sant yàlla te te te jàpp ji yàlla rëbb na ku yee seytaane ku ko bëgg bu fekkee da ngay xeex pour ko boo toogee xeex mu ne ko jëlee. te aada boobu aada la boo xam ne ñun soxla nañu ko loolu. nañ dem ba ne deux mille vingt quatre deux mille vingt quatre mu ngi ñëw su ñëwee coono juru ko kenn ku nekk jël sa carte te gis nga xale yi ngay gis ni quatre vingt dix neuf pour cent sa carte coow rek ka amul sa carte oto jël leen dépassé am ñoo xam ne buy wote ñëwee dañuy ñëw ba midi ñu eegu ndéeg ci toog di naan ataaya ñi mu sëggin kon ñu ngi sant yàlla baax Sénégal mooy suñu réew Sénégal lañu bëgg Sénégal lañu xam duñu sam nee noon xobul wote min imam bu kenn jëm yàq suñu Sénégal gi Sénégal ay po amaguñ dara ñun amaguñ dara waaye nag li xamul waral lii ñàkk defar nit ñi la gis nga foofu soo defaree bâtiment ba bâtiment yi baax te nit ñi baaxoon bi nit ñi yàqal bâtiment yi waaye su nit ñi baaxee na bâtiment yi buñ tax a dem mu baax. maa la wax loolu te gis nga sa gis nga réew yàgg naa ko wax ba ne Sénégal dafa am pétrole am gaz la laa ne ay am na fi maa ko waxoon ba ma dégg ne feeñ na fi laa ne ay am na Sénégal. Petrol gas is a movement. I Petrol is a gas movement. Pune. Para para sumbo. jamu do dafa mukk ñu ngi sant njam lañ bëgg bëgg njam rek lañ bëgg njam rek njam dal ñun moom lañ bëgg